jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu Serigne Habib Sy ibnu Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mooy egsi noonu fii ci di Saaxo bi nga xamante ni tabaarakallahu mbokkam mi euh, Serigne Mouhamadou Mansour Sarr mu ngi noonu di ñëw di ko di ko di di ko di si Serigne baa ngi noonu Habib a noonu sëriñ baa ngi noonu di nuyoon teg mbokkam mi tabaaraka Allah <laughs>

maam doomu Uudi Serigne Habib Sy bëgg nañ la ziar nañ la si mari yàlla sa taxawaay yàgg yàlla nga fi yàgg te asamaay ba waxoon dina ko wax sa nga la yàlla na yàlla nga li sagal kenn du Serigne Habib ñu doon di yoon te njaboot di fii ci Uudi ñu doon am nañ gerte sama fee ay mari waxoon na ni moom na jur bi ñëw sa baay ñu ne almaktum doy na. gan gu rëy ñëw ci bis. gan gu rëy la moom moom moom li war a jox ndax bu mag bisu mag la ñu koy daan waaye gan gu rëy ñëw na ci bis bu rëy aja bismillah